waa ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed sallallahu taala wa dañuy sant euh, président de la république gouvernement am ak président assemblée nationale ak député CEDEAO yi ak député Gambie yi yëpp ak waa Gambie ci teraanga bu mag biñ ñu defal mooy dalal ñu fii ci Gambie euh, gunge ñu jox ñu sécurité waxtaan ak ñun. loolu danaa ci santit opposition gambienne bi ndax euh, seeti nañ leen waxtaan ak ñoom pour jàmm mën a am Gambie euh, ki ci gën a mag euh, te xam ne mook président ñoo àndoon muy Dabo seet nañ ko waxtaan ak moom wax joo xam ne pour jàmm am diggante mag président de la république waxtaan nañu it ak mama mi nga xam ne mi kande leaderu opposition la bu jegee président de la république ndax mbokkam la euh, waxtaan bu yaatoo yaatu fi mu toll it bëgg nañu seeti leaderu parti bu Yaya Jammeh tey waxtaan ak moom loolu lépp nag waxtaan nañ ko ak président gannaaw bi ñu ñëwee sant ko ndax li taxoon ñu ñëw lu ñu yàgg def la réew mu ñu dem njiitu réew ma bu ñu recevoir danañ ko wax sant ko ci. sas wi nga xam ne ñoom chef d'état yi dañu ko sas ci liggéey bi ñu war liggéey te liggéey boobu toll ci njeexit ndax le 3 février moom la mandat député CEDEAO yi di jeex ndaje bi mooy bi mujj kon man pour ma nekk président parlement mais comme fekk naa fi ay coow comme ni muy amee fépp dox naa ci tànki jàmm moom mi nga xam ne mooy njiitu réew mi te bu jàmm amee kenn du ko ci ëpp ma ñëw rendre ko ci compte ci ñi ma gis waaye lépp nag li ma ko sante mooy rafetlu na ko tànk yi ma dox leeral naa ko eh, bi ñu demee it ba waxtaan wi pare ñaan naan nit ñi may ñu ñu wax loo xam ne duma ko wax ci rajo wax nañ ko ci lu gën a leer Euh, li ma xalaatit wax naa ko moom itam li nga xam ne jàpp na ne noonu la war a taxawee euh, euh, wax na ma ko waaye loolu du lu ñuy weer ci ay rajo xëy na fan yi ci kanam da ngeen ci xam lu gën a leer waaye waxtaan nañ daal waxtaan boo xam ne mbokk la ak xarit président yi dalal nañu daal gu mat moo gouvernement ak assemblée nationale ak peuple bi mënuñu ko bañ a sant cant gu rëy te di ko ñaanal yàlla def jàmm am ci Gàmbi ba sas wiñ ko sas muy peuple bi sas ko ko ak yaakaar jooju bañ a tas mu continuer mandam ci jàmm jàmm am ci Gàmbi loolu daal mooy li nga xam ne moom laa mën a tënk ci wax wasalaam